waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu nuyu bu baax a baax a baax waa àdduna di wax ñu ndeysaan rajo Sénégal am wax waa loxo tamit ndeysaan yi yëpp xaw xaw di ñu nuyu ndeysaan waa monde loolu yëpp ñu ngi waa àdduna loolu yëpp di jël nag ñu bu baax a baax nag suñu sëriñ sëriñ Dame Diouf laabaay laabaay bi ñu ngi ndeysaan gaynde bi googu di Abdoulaye borom parti MDS Fula ak bu baax a baax baax di borom pitu di ngeen nekk ñu bokk di ngeen nekk ku dundoo la ñu ngi waa adduna waa diaspora bi ñuy ñëpp ñu ngi waa Louga dem ba Saaf ci télé bii di Bëgg Ndongo TV international ñu ngi ziar ñëpp waxtu bi ndeysaan suñu téléspectateurs yi tey dañoo ñëw suñu deuxième numéro muy spécial tekki kàddu ndongo waaw fas yéene ñu jàkkaarloo ak yéen tamit fas yéene tamit indi ay faral ndongo tamit di leen doon tamit ñu àndandoo ñu jàngat ko tamit àndandoo tamit xool ñun ñu ko déggee ak ñu xalaatee daal kon di jëlaat sa soo ma dégg soo. waaw kon nag ñu nekk dëgg noonu ñu kàddu boobu. nga xam ne ndeysaan dafa ni ngeen jàngate kàddu boobu wax ay waxam ngeen di jàngate tey spécial tàmbali bi loolu leen indi muy mais nag di wax tamit ndeysaan émission bi muy nii seen la tey nag samp laaj bi muy spécial tekki kàddu ndongo di wax wax ku nekk nag nga bëgg a participer ci sa réponse nag mën nga ñu envoyé suñu sa rek muy 421 39 71 rek man amoon boo ñu vocalé wax ñu ñu deuxième vidéo di vidéo réponse incha allah daal di indi jotaay su gaa yëpp waa àdduna ak waa boobu yëpp jàngatee ci ndeysaan nga xam ne ndongo moom alxuraan moom dafa gis trop trop trop trop macha allah dafa gis trop ne comme boo duggee si bëgg ndongo international rek mooy Facebook bi di gis léew groupe teg kàddu ndongo boo duggee boo si groupe bi di nga dugg mën a joxe sa participation sa sa sa kàddu

yoo xam ne ndeysaan comme noonu rek sa waaw laaj baaxul noonu la li ma la wax ni baaboo la xam ne doo waar naka ngeen koy ko déggee ak mooy baaboo la yaakaar naa jiitu mbay Fall borom ca kaw war nga ñu mën a jàngatal loolu kan mooy baaboo la waaw kan mooy baaboo la ak baaboo la naka lay dindi ak nit xamante ni ndeysaan nit ñi. bu ñuy jàppee baadoo rek mooy ku wóor wala leen leen mais yaakaar naa la gars yi daal waaw ba su sori parce que jàngat yi xam naa après ñu wàcc si si 77 421 39 74 wala daal ñëpp daal ñëpp ñëpp ñëpp seen émission mu nii di deuxième numéro. vidéo waktu saya udah mulai nii donc ndeysaan xam naa nag fii lay tàggatoo ak yéen parce que yaakaar naa waa àdduna bi yëpp nga desa ne yéen a dugg fii ci Bokk Ndongo di ko seetaan yaakaar naa dégg ngeen laaj waaw kon xam naa dañuy joxanteel dañ rek mais wax ni desa yi faites vous bonne réponse ñun ngeen ñëw indi seen ay réponses ñu ci vidéo bi jàngatee wax nga ndeysaan émission stop moom video vidéo bi gars yi ku ma envoyé sa vocal rek WhatsApp pour ñu ci participer rek dinaa ko garder dans 15 jours dinaa ñëwaat indi audio réponse ci kaw ci chaîne bëgg ba ma fii biir international bi ñu bëri ñëpp nag suñu grand yi kenn maa ngi bëgg bu baax a baax paa ngi koy bëgg di bëgg sama sama grand vieux Guèye ak njàng Guèye ngi bëggee bu baax a baax a baax sama sëriñ sëriñ daan bi la maa naa ba jël ko ndeysaan génne ci biir di Abdoulaye Dodo gisee maa lay bëgg bu baax a baax a baax ndeysaan moom ndeysaan moom xam na waxtaan bi bu baax baax baax di bëgg sama mbokku tur bi yëpp am nañu tur bi daal ak yu bëgg TV yëpp yëpp yëpp maa leen di bëgg bu baax a baax ndeysaan tout temps ñu ñuy di gis télé bi am solo di suivre askan bi lépp di wax tamit émission tekki kàddu Ndongo mi ngi kon gars yi yéen déggandoo muy baadoo xamul joowaan dañ koy joowaanu kàddu gaam noonu yéen tamit yéen tamit ngeen ko jàngatee seen ay vocal seen ay audio yoo xam ne tamit important c'est sur la télévision Bourbon Ndongo TV international bu déggee gars yi kon gars caaw caaw dig daje bye bye caaw gars